jërëjëf sëñ Bass comme niñ ko waxee tey nag toog naa taxaw naa kenn koo xamante ne euh, muy sama turandoo di Baye Djily euh, ñu koy siyaaraat bu baax a baax a baax Baye Djily tey nga ñëw ci ci ci association bi tey ci forum bi ñu ñu ñu ñu ñu honoré la ban ban ban gis-gis nga ci am ak ban yëg-yëg. waaw tey vraiment émotion bi jàpp na ma ba nga xam ne ci biir salle bi mënu ma woon wax mënu wax parce que tey waa Thiès lu ma leen ëndalee lu ma daj ci ñoom rek tey delloo doon ma ko quoi. te association bi mu amee ñu jël ma def ma euh, le premier conseil. Hmm. li ma jëkkat def mooy tey projet bi bi mu amee. Hmm. man ay responsabilité laa yor Dakar yor fa ay écrits bokk ci ay association hmm. mais li ma jëkk def xam nga dañ ni ndaari sori na mooy mooy kër bukki sama xel ci Thiès la jeunesse de Thiès la jëkk a def c'est pourquoi ma reyante 14 régions Sénégal yi benn formation moo ci amagul bi des ma décroché ko indi ko fii ànd ko ak Maodo Malick dañ koy saluer au passage puisque li mu def moom moo ci jàpp tey ba affaire bi réussir parce que tey lépp moo ci jàpp mais vraiment waa Thiès man amatuma lu ma leen waxal te ñaan naa yàlla ci li des sama life sama dund projet yu gën a garaaw yi dinaa ko yanu indiwaat ko Thiès incha allahu rabbi su neex suñu borom bëgg-bëgg gi ñu am ci yow yëg-yëg bi ñu am ci yow xam nga ko. non da xam ko moo tax mënu moo wax sax ci kanamu saal bi parce que vraiment su ma waxee sax damay mën naa jooy wala leneen quoi loo tax que ñoom ñëpp ma bëgg ah ñoom ñëpp surtout maa fii Mati ki nga xam ne mooy présidente euh, euh, mouvement féminine bi guddeeg bëccëg du nelaw biig bi may envoyé ay ay message boobu ñu ngi fi a 11h jëm minuit ñoom ñëpp vraiment ay jàmbaar lañu vraiment loo tax kontaan naa ci ñoom quoi lépp lu ma xam lu ma mën sama kattan sama lépp Thiès la lu ma am rek fii laa ko indi je suis très fier kontaan naa trop tey quoi ci ñoom. Mati euh, noo ko noo ko dundee. kontaan rek am mbégte ci suñu papa alaaji ji li macha allah lépp moom la parce que lii ñu fi def rek euh, moom la ndaxte moo waral lépp ndaxte bi Omar Diko génnee àdduna ñu xalaat li sama càmmiñ yi xalaat lii ni dañ koy def wax ko père jii li muy doomi Thiès ànd ceeg ñoom kon dañuy am mbégte ak fierté pour defal ko lii sama papa yi bopp la na man maa ko tippoo pire mais luñ ko defar rek amuñu ko. dafa mel billaa xol seddati na. <laughs> <laughs> merci beaucoup